voilà euh, deuxième point bi si mooy euh, baisse donc du loyer nous disons que la commission euh, qui propose donc la baisse baisse segmentée tu vois donc à compter donc du 1er janvier donc 2023 ci tënk ko ci ben rapport ñu gis ne rek ci ab réunion bi nga xamantene bi dañ ko def ci walu mode fast track euh, ci rapport final bi donc euh, ganaw concertation yi nemmeeku nañu li nga xamantene mom modi di cherté donc de la vie fiti ci Sénégal manam dund bi donc dafa metti euh, bolé ci aussi jafé jafé yi nga xamantene donc ñu bari ñoo koy donc si ajoute aussi location bi donc lool nak donc ñoo ko fësal ni ki altine fukki fanak euh barki demb plutôt donc il fan euh, ak euh, fukki fan euh, ak fukki fan ci weeru octobre bi at 2022 donc mesure bi ba ko ak est-ce qu'on peut dire que quelque chose a changé ou quelque chose n'a pas changé fais le fast track tout tout bi par il y a 8 ans on a un petit problème loyer bi tamit ne dañ koy wàññi mais problème Sénégal moy bailleur yi ak propriétaires boo waxee tey mu ne la li ma leb banque remboursé gu ma ko mais am na ku ma déglu keroog ko mu ne dañoo war a recenser kër yi loué ndax kër yi loué la plupart kër yi nga xamante ne à location lañ leen def fii nii yi ñu déclaré bëriwut maanaam nit dee tabax këram ne la à titre habitat la koy def te location la koy def loolu tamit y problème te ñëw ñooñu ñooñu bokk nañ ci ñi exploité nit ñi est-ce que duñ ko def niñ def carte grise yi wala carte d'identité def base de données comme quoi comme de telle sorte que kii bu defee kii zone yi ñu bu ñu fixé loyer par zone ñoo xam kii kër gi nii locataire am na fa waaye nga tabax kër ne man loué wu ma damay dëkk alors nga dem dëkk beneen kër continuer di loué kër googu y'a problème tamit lu ñu deful ci huit ans bu ñu ne dinañ ko def ci trois mois du wax ne que du dëgg mais ça va être difficile très difficile ndax déjà li wax recensement kër yi nga xamante ne euh, wuñ à titre de location ba pare def leen ay location yooyu tamit y a problème monsieur donc si je comprends bien donc on peut considérer que donc est-ce que mesure bi une mesure populiste quoi une sorte donc de propagande donc histoire donc d'essayer donc de faire plaire aux Sénégalais quoi en 2018 euh, euh, Macky Sall dafa que année bi année de socialisation juste parce que 2019 euh, lañ doon jëm élection yaa ngi je pense que cette année tout tout même chose lay doon bu affaire bu vie fi même problème bi wala résoudre un an après dina ñëwaat ndax ñu ngi lañ trois semaines lañ ñu pour euh, baisse prix yi est-ce que vous trois semaines yi est-ce que dégg nga rapport bu ci la vérité du yomb def nga huit ans doxul trois mois à moins que fekk def nañ def ay recensement jël ci ay yu mat sëkk ndax location mo gëna cher bi instant yi moo gën a cher dund gën a cher électricité te ñu propriétaires yi ñu ngi dund ci ginnaaw seen da ngay gis ku tabax këram feye ko na bu yàgg li mu ko tabaxee woon mais nangu wàññi loyer bi te par zone dañ la naan zone yi boo amul nombre de millions doo ko am boo amul nombre lii doo ko am c' est difficile ci euh, population boo xamante ne voilà 10 pour cent yi sax amuñ lu ñu euh, ndekkee añ reere ko De toutes les façons, on peut dire que donc, par rapport à ce dossier aussi, euh, c'est une affaire à suivre, hein, parce que bon, tout compte fait. De très près. Voilà, ah. donc euh, la mesure a été prise, je me rappelle très bien, donc euh, juste même en 2014, hein, je crois, donc le président Macky Sall l'avait dit lors de son adresse à la nation, 31 décembre comme quoi, tu vois, on va procéder à la baisse donc, des prix donc, des, loyers. Mhm. Mais jusqu'à présent, ça reste à l'État. Donc, ça veut dire que n'est-ce pas, on peut considérer toutes ces mesures comme étant donc, des mesures populistes, quoi. Parce que, amoul suivi, amoul effet, et puis ça ne donne pas d'impact, quoi. Donc, finalement, c'est toujours donc, euh, le citoyen lambda, tu vois, donc, qui en paye donc les pots cassés ou bien qui continue toujours à payer très cher, quoi.